Youssou Diop moo wuutu Atou Diagne ci bopp daayira Hizbut Tarqiyyah jaar jaanam anam mooy kan moom moom nga xam ne nag 1982 la duggoon ci daayira bi boobee ba léegi nag mu ànd kook ñoom ña ngay tudd daayira étudiant murit euh, boobee jàng na comptabilité jàng na itam xarala yu bees yi bokkoon fi itam ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tekkeewle woon mbindum sëñ Touba ñu jële ko ci al euh, arab yóbbu ko ci euh, français ma Diop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 mi nga xam ne jamono ji mooy personne morale bu Hizbut Tarqiyyah mu ngi sanc ci biir quartier général bu Hizbut Tarqiyyah ak ñetti soxnaam ak njabootam